dëgg yàlla naaj na ko xam nga rafet na mel na ni mu war a mel macha allah daal comme stade yi ci monde bi yëpp ah. waaw loolu loolu moom kuy sportif da koy ñaawlu xam nga saaru bis yu mel nii bu ñu ko amee nañ ko respecté sàmm ko xam def nañ ci li ñu war a def le reste mooy sportif yi ñoo ko moom xam nga nañu xam li ñu leen defal lan la xam nga ñu respecté wu quoi pour man loolu la quoi. non man comme li may wax rek euh, tey dama ñëwoon fii suuf pour ñëw ci affaire xam comme sénégal ah ñëw seet si stade bi ni mu naay see affaire yooyu mais affaire wu combat moom tey way bien sûr. Yeah. xam nga làmb moom làmb la rek ñun ba ñu fiy toll ñoog suñuy grand dañ leen a tàllal loxo ñu may ñu loolu moom xam nga euh, maa ngi leen di féliciter di féliciter euh, Reug Reug di encourager guy gi te xam ne xam nga làmb la bon man nag xam nga man pour mbër yëpp laa fi neex la ah. man moom néew ma fi di taamu adversaire kii la wala kële non maa ngi entraîné maa ngi xaar combat ennemi ku ñëw rek mooy loolu quoi. mooy li ma lay wax man làmb ji maa fi ëpp ay adversaire loolu moom dafa leer ko loolu moom leer na Sénégal yëpp wa te xam nga pare naa pour bëreeg mbër yépp daal. merci.